su yan naa la bu téye kay kay bismillah asalaamaaleykum mbokki àddina asalaamaaleykum rawat ñi si daan TP TV man Aliou Diouf amaat kontaan bu baax a baax a baax jàkkaarloo ngeen si émission mbër doole wax naa leen ko nii lay demee euh, chaque chaque dimanche ah bu 18h jotee jàpp 19h mais mais tey nag xam naa da ngeen ma koy jégal dama xaw am tuuti kay mais nag voilà xat-xatu jamono jamono rek la mais nag maa ngi si jégalu bu baax a baax a baax tey nag. voilà maa ngi fi am sama ñaari kër consultant Dixa yaakaar naa yéen moom min ngeen ko kay ci biir kay kër gi ak euh, Xaadim ma tamit min ngeen ko kay ci biir kër gi xanaa surprise bi kay mooy Seck Ndaanaan Seck Ndaanaan nekk champion bi nga xam ne moom kenn dootu ko présenté kay ci wàllu daw ci làmb ndax def na fi lu ne ah mais xanaa nag damay bàyyi euh, sama jigéen sama xarit Dixa mu mu présenté wu voilà. salam téléspectateurs yi ñu leen ziar leen jox leen seen way comme ni ko doon défé tous les dimanches ci seen émission mbeur doolé tay nak ñu dalal ndaanaan bu am solo way bala bobu dañuy nuyu sëñ hadi mom ñu ngi bokk suñu plateau di nuyu sëñ Xaadim mom tamit macha allah nuyu ko ziar ko waaye nuyu suñu gan gi nga xamné moy mooy. Seck ñu xam ko bu baaxa baaxa baax tay ñu wara ñew and ak mom ci plateau bi defal leen lu spécial nuyu wat la bu baaxa a baax Aline. Mhm. ziar la. Mhm. di xaa ma lay baax di la sant kay ci présenté bi bu baax a baax kon daa mel ni kay tey ñaari xaadim moom laa fi am ñaari bamba <laughs> xaadim yow tamit ma lay bu baax a baax a baax xanaa damay baat si sama benn constat bi xaadim bamba xaadim bamba Diouf moom moom moom sama doom baay la <laughs> bamba Diouf maa lay nuyu euh, effectivement waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp sama bokkal plateau di nuyu sama waaj Aliou Diouf mhm. sama doomu ndey di nuyu sunu euh, invité sunu invité bi ak euh, Dira di nuyu tamit sunu mbokk bële sama turandoo bi tamit <laughs> Bamba ñu ngi leen nuyu bu baax a bon di rafetlu jotaay bi mm-hmm. c'est pas la première fois comme mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi rafetlu daal télé bi encore une fois di la jëfee Xadim Bamba Diouf oh, léegi nag damay li bàyyi présent mbër mbër ah. ma lay bàyyi yow nga présenté wu champion bu mag bi sekk ndaanaan waaye ginnaaw bañ sant yàlla la julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur mm-hmm. di sant tamit ñi ñuy bàyyi xel di sant ñii di suivre TP TV yëpp di wax télé boo xam ne askan wi dañ koy bàyyi xel baax a baax a baax di ñaanal yokkute xam nga di nuyu Bamba Xaadim xam nga di nuyu Aline Aline Diouf mm-hmm. si sa mm-hmm. xam nga moom moom yokkul day wàññi. wàññil day wàññiwul day yokk. <laughs> ndax chaque instant mu ngi gëstu nga xam nga. di xool ñi nga xam ne mën leen yaa ma gën a nekk ci beneen kii. di nuyu tamit xaarim bi ma àndal. Mm-hmm. Bamba maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu seen waa kër. Mm-hmm. xam nga et di nuyu yaayam tamit di wax nit kuy sonn ci man la. di nuyu yof gi nga xam ni fa laa jóge mm-hmm. xam nga di nuyu Ngor Wakaam Almadi Trawo di nuyu waa Tiwaan Pël bu baax a baax a baax. ndax lu ci bari bu ma amee ay combat fii laa koy péré kon maa ngi nuyu waa ci waa Ancol bu baax a baax a baax mm. rawatina waa APEX. Mm. ndeysaan Seck Ndaanaan xanaa da lay bàyyi rek yow nga gën a koy présenté wu Seck Ndaanaan ñu bëggoon xam ne kañ nga dugg ci làmb ji. waaw làmb maa ngi ci dugg deux mille deux mille vingt mille vingt. deux mille ah, mm. mais lan moo la poussé yow bëgg a dugg ci waaw làmb moom amour la rek boo xam ne am nañ ko xam nga juddu tamit suñu maam doon bëree maam moom bàyyi xam nga mm-hmm. ñun ñu nekk ci làmb nekk yoof tamit nekk ak suñuy grand yoo xam ne dañ doon bëri ay mbapat ñu leen suivre ku ci mel ni moo jël mm-hmm. ñoom gin xam nga mm-hmm. suñuy grand ay loobu yoof ay Ablaye Diop ñu topp leen mbapat fu nekk xam nga dem ba amoor bi dugg ñu tamit yàlla daf ñuy bëre di bërintu di bërintu yàlla daf ñuy génn ci àll bi di bëre dem ba dem ba doon mbir boo xam ne mënu mënatuñ ci rek la daal. Mm-hmm. waaw muy nattu yàlla boo xam ne moo moo ñu ko nattoo ñu nekk ci tamit. Mm-hmm. di ci sentir suñu bopp bu baax. ko. voilà bu baax a baax loolu leer na mais Seck Ndaanaan bu ñu bëggee xam Seck Ndaanaan fan mooy cosaanam. Mm-hmm. waaw man sama cosaan Yoof la. Yoof waaw Yoof laa juddoo waaw Yoof Yoof laa juddoo xam nga. nekk tamit bu nekk boo nekkee bu nekk Yoof ba pare. dem daara xam nga maanaam damaa judd ci Dakar màgge ci kaani yaru ci li ngoom mooy damaa juddoo Yoff dem ko ñu yar ma mu jóge fa nekk Touba nekk daara waaw kon ñetti réew yooyu laa boole kon ñu ne sekk ndaana boo saful ñu laaj la ko li nga boole dafa bëri macha allah hmm. waaye bu boobaa dañuy laaj sekk ndaanaan ndax dafa am nijaay yu bëre wala dafa am papa yu bëre wala yaa jël sa réew bu bopp sama maam lan ma wax moo daa bëri mais xaw ma ko mais tamit yooyu laa fekk sama daana bëri mais yàlla def tamit ñun ñu nekk ci di sentir suñu bopp yàlla yàlla yàlla duñ suturaal daal mais am naa ay grand yu bëri yoo xam ne ñoo ma teg ci yoon ba ba ba ma ba ma toll fii nii ci làmb ok c'est que la ca maam sa di jël Aliou mu wax mu wax moom yaa ma gën a xam mais eh, c' ma lay naa laaj yow tamit eh, lan moo la da ngay moo la gën a poussé ci làmb daal. dafa mos nekk suñuy bëgg man làmb rek laa mos a fooye mm-hmm. waaw mosuma leneen lu làmb damaa nekk daara di jàng mais terewul bu jàngee ba pare di bëreentu foofu. xam nga amoon bi dugg ñu bañ ñibbisi tamit fekk ay mbëri yoof yoo xam ne tey jii nii ñu ngi leen fekk ñu doon bëre mm-hmm. yàlla def tey jii nii ñu nekk seen ginnaaw di bëre ba agsi fii mooy kon li ma la sànq rek mm-hmm. waaw mais amur boobu noonu dugg ñu ba ba ba waaw ba yàlla def daal tey ñu nekk ci bay bëri arène mm-hmm. waaw mais nekkul dara mais gëm-gëm nga ci am bi ma ci am mooy bi ñu ñëpp am rek maanaam teral ci say waajur waaw yàlla defal ñu ci jàmm defal ñu ci xéwal xam nga teral ci suñuy waajur bu baax a baax di profité tamit xam nga di masawu sénégalais yi li fi am fan yi yëpp xam nga parce que métti na tamit ñun ay jeunes ay jeunes lañ te ci réew mi leen dëkk tamit ci réew mi lañ bokk kon yu mel nii bu amee buñ toogee ci plateau yi war nañ war nañ mën a wax ak ñi nga xam ne ñoo topp suñu ginnaaw muy jeunesse bi ñu ñu xamaat suñu bopp bu baax xamaat fi ñuy teg suñu tànk bu baax xamaat ñooy kan bu ñu kenn dugal ci lu mu war la dugg xam nga gars yi li ñuy def li ñuy li ñuy jox nit ñi di di financer ay mbër pour ñuy def nag su dul noonu loolu mënuñ ñoo jël ñëw sax nag ndax voilà man fay boobu yor na ma trop mais kay balaa boobu rek c'est que euh, ban nga nekk écurie Yoff laa am ñaata commandant am na six combats six combats six trois victoires deux défaites benn sans verdict mooy hmm. combat bi ma mujjee nii écurie Yoff écurie Yoff waaw oh, voilà bu ñu amee xamee ko euh, six combat bu ñu bëggee xam euh, bébé Thiat Seck Sekk Sekk Ndaanaan au moins. Thiat Sekk Ndaanaan oh waaw dama dama ko wax ko boole Thiat Sekk moo tax dañu ko ni Thiat Sekk. waaw Thiat Sekk waaw di profité di nuyu sama mbokk géwél yi rek. waaw waaw ay géwél lañ. waaw léegi loolu daay géwél gi daal. jërëjëf waaw ñun te ñun ay géwél lañ. man dugg naa ci géwél gi. askanu géwél. macha allah. voilà léegi point bi ñu lay laajaa rek bu ñu nee Seck Ndanane euh, lan mooy métier parce que bu ñu nee làmb ji euh, foog nañ ne làmb ji métier la mais Seck Ndanane lan lay boole bi nga xamante mooy làmb ji. waaw man doon def nag wax dëgg na que yaa ngi ci waaw des fois nekk ci des fois bu làmb taxawee ma nekk ci làmb ji. Mm-hmm. déjà fan la gars yi gars yi. numéro bi acca ba tey mën ngeen a dugg soixante euh, mën ngeen a def soixante dix huit. 468 01 36. 78 468 01 60 36. bu leen ko defee ngeen déggante ki nga xamante ni mooy euh, Seck. ndaanaan ndaanaan. Bamba yaakaar naa ne dégg nga ko nee naa moom am na 6 combats 3 mhm. victoires 2 défaites benn. sans verdict kon fan la war a dem ci làmb. moo gën a analyser. instant bii man li ma li ma jàpp mooy fii ne da bëgg dara de. jàpp bi mu toll nii fi ne nii mm-hmm. li mu wax ne xam nga lu ma ko njëkk laa ne ko ban gëm-gëm la ci mm-hmm. mu ne tere ci waajur. kon mm-hmm. saa nii duggagoo sax te loolu ay xale la nga li sa sa ginnaaw daal dépassé ko. jë jubali sa kanam. ci fukki war ak ñetti wala ci defet. six cent vingt maak Aliou maa bëri spécial. mais Aliou dafa joxe victoire bi. mais mm-hmm. eh, après ko def sans verre acca ba tey yow bi ñu ñëwaatee rek ma laaj la sama question bu ñu nee la Seck Ndanane mm-hmm. léegi instant bi aussi nekk ndax sekk ndaanaan jóge na ci Verbile ah, gis nañ say mboot ah gis nañ say mboot sa géew gi envoyé nañ say gi ah, say call call ci diggu géew bi dinaa ci ñëw ak yow loolu après lay doon mais Seck Ndanane bu ñu bëggee xam Seck Ndanane làmb ji defet bi mu ko jëlee defet fan ko yóbbu ba tax mu reprendre at ñëwaat ci làmb ji ak ban jafe-jafe la mën a dund ci làmb ji. waaw làmb moom booy dem trois yi ngay yóbbaale mooy victoire défaite match nul mais ñun gëm-gëm bu am mooy saa yoon demee dañoo war a am ndam mais yàlla des fois nga ne waaw mun déedéet. Mm-hmm. défaite tuddul défaite defar lu tudd. ndax boo jugee ci defet di nga xam li la war di nga xam li lay xaar di nga xam am na nit ñoo xam ne tamit dañuy sonn ndax yow dina la topp duñ nelaw ay nit yoo xam ne boo amee combat fu nekk la ñuy jugee wallaahi man damay am combat ay nit jugee Mauritanie ñii jugee ci àll bi ay Joal fu nekk di ñëw xam nga kon ñooñu noonu boo jugee si combat xool seen kanam yooyu motivation la war a doon ci yow daa am loo xam ne boo ñëwee da nga ko war a dolli mais waroo wàññi mm. moo tax saa jugee ci làmb mu ñu am ci ndam mu ñu ñàkk ndam dañuy nekk si liggéey bi xam nga surtout noonu la demee. Xaadim Bamba. yow boo doon conseil yow loo koy conseil. comme li ma ko li ma wax dibi ba rek. parce que dama koy damay dolli waar rek xam nga mbëri ndaw yi. man ku ma ci ku ma ci éviter nii li may njëkk a tuusee mooy boo waxee ne ni ma ciy jàppale samay waajur. loolu man daf may daf may njëkk a tuusee. kon comme début bi li ma ko waxee ne moom ça veut dire que saa yi defagul dara. kon xam ne yeneen ak yeneen yu nekk ci boppam li ma lay conseil daal mooy nga gën a fonkaat sa entraînement gën a fonkaat tamit say supporters parce que làmb si supporter am mooy lépp de mm. promoteur yi leen tëggal làmb si supporter rek la ñuy xool mm. ñooñu moom boo leen joxee cër bi nga leen war a jox respecté leen di déglu say conseil surtout ñoom tamit parce que làmb dañuy am spécial ñoo xam ne dañ leen di conseil mais bu doon dawul deltu ginnaaw di dem ci supporter yi tamit nit du la bëgg di la nit du la conseil lu lu dul yoon. dëgg la ñooñu moom boo leen leen jox cër. Mm-hmm. di leen di leen digluwaat bu baax a baax li nga bëgg si laa am dégg si waat loolu moom lu ma lay boole. parce que daal yow tamit man man ma ñëw ñu ma ñëw moom naka nga gisee làmb ci. waaw làmb moom ni ma ko gisee mooy ni ko ñëpp gisee rek. làmb làmb làmb daa njaboot ndax ay jamono ay temps da nga daa dem si koñ fekk fa Balla Gaye Modou Lo. USAP yeneen mbër ak yeneen mbër mais léegi koñ boo dugg da nga fay fekk mbër. kon état ñu dimbali valoriser ñu suñu làmb ji ndax ñun amuñu lu dul làmb ndax koñ boo dugg di nga fa fekk jeune boo xam ne day takk di ngemb bu ngemboo ay ay centaine de personnes dina ko topp wala yaa ma gën a xam wala lu ko ëpp. kon nañu jàppale valoriser lu suñu làmb ji làmb mënul yàqu ndax ñun làmb mooy suñu culture. làmb mooy suñu aada mooy suñu cosaan. kon ñi ci war a jàpp buñ ci jàppee teg ci loxo rek damay gëm ni làmb day passé fii yëpp ndax ñun ay jeunes lañ rek nekkuñu di agressé nekkuñu di def dara tey jii nii buñ tëjoon làmb ji mënoon mën na demee neneen ndax am na ci ñu bari ñoo xam ne ci làmb lañ yaakaar kon tey jii nii ñoom lu ñu war a def rek lu ñu mën a def lu dul jàppale ñu valoriser lu ñu làmb ji lu ñu waaw lu ñu mën a def mm-hmm. defuñu lu gën loolu ndax jeunes yi tey jii ku si jug gayen man li may topp dafa bari wallaay lazim bu ma génnee yoofu yëpp dañuy génn Tiwaawan Pël gii li fiy jóge di ñëw yoof mënoo xam ni mu toll ndax fii laay nekk fii laay waajee samay làmb est-ce que tamit violence yooyu nekk ci làmb ji mhm. est-ce que tamit yéen ngi ciy def ay ay jàngat ndax ndax li ci ëpp Euh, ci euh, supporters yi kay lay jóge est que loolu tam yéen ngi ciy waxtaan. waa léegi violation bi ne ci làmb ji. Hmm. day jóge ci arbitre day jóge ci mbër day jóge ci. ci ci ama amateur yi sax mosuma gis ñu def ay violence amateur mais gis nga mbër hmm. gis nga làmb dafa metti hmm. yaa ngi dégg boo paree sa làmb ba ba waaj ni nga war a waajee boo ñëwee ci làmb looy bëre daa war a doon yoon kon sama combat bi passé am na ñu doon doon yeneen booy amul amul discipline dañuy yàq làmb ji kon grand combat bi du am mm-hmm. waa si waaw ndax sama combat bi bëri naa ñëpp gis na ni mu demee si amul arbitre joxe victoire voilà léegi ñëpp carrément ni moom waaw loolu jaaxal na léegi à site amul arbitre joxe victoire imagine toi ñi ma àndaloon doon ay nit yu yarade ko mm-hmm. wala nit yu réew dañuy yàq bés bi grand combat bi du am kon loolu si làmb si doguma la sax ndax gis naa sax ñoom ñoom ñu commencé woon kay di ngal mais. waaw yow nga ñëw ci ñoom ñëw calmer leen. wax ak ñoom voilà après ci laa gis. léegi noonu la demee léegi samay supporters yooyu bu ma déggalul woon tey jii amaana métti lu nan ko nag ba tey jii nii ba li leen gën a métti seen àdduna lool la ndax baaluñu ko arbitre bi te man mii di wax ak yow baalu ma ko arbitre. bi wallaahi lazim mhm. ndax làmb dafa métti da ngay waaj ànd ak say mbokk def lu ne. Mhm. dugub fu ne daj lu ne. arbitre yàqal la ko si naka sudul noonu te benn daan du ko ci fekk te ñun mbër yi luñ def loo xam ne waruñu koo def ñu teg ñu ay daan. loolu teguwul fenn. incha allah ndax nit maanaam ñoom ñoom ñu ëmb làmb war nañoo toog ñu waxtaanee làmb. man moom CNG moom ay mbiram xaw na ma. yaa ngi dégg noonu la demee parce que. ñun man moom non man man maa ngi ci làmb ji mais CNG. wax dëgg man ay mbiram kam jaaxal mu ñëw bi ñu sanctionné mbër te mosuma gis moom ñu sanctionné arbitre. ñu voilà. léegi loolu pour la ñu dagg mbënd dafa naa nga euh, waaw te léegi te ñun ñu muy daj ñun maanaam ñun dañuy daj ay coono ñun dañuy am combat jaay suñuy bien jël suñu xaalis def si wallaahi ay nit di yëkkati xaalis bu bari duñu ko jox pour ñu séntu si ñun leneen lu dul loolu noonu. Mhm. seen ay nit dagg seen yite bàyyi seen temps ñëw te temps yombul geen fi ñu toll nii temps dafa seer quoi. Mhm. léegi bu ñu ñëwee lu ñuy def dafa war a leer. Mhm. làmbu simple yi boo amee site. dañuy dem jox recours léegi ni si si si recours waaw ñu joxe victoire. Mhm. CDAO bu site amee dañuy dem joxe recours léegi ni ñu joxe victoire. Mhm. mais pourquoi ñun suñu lamb bu jaxasoo ñu ñëw joxe victoire su naka suñu ko def ndax pour lan lekk suñu xaalis. mais loolu du leen jik est-ce que loolu tamit kaas ngeen ko mais danoo wax ba sonn yaa ngi dégg ñun. ñun maanaam dañoo am maanaam mbër yu mag yi nga xam ne dañoo nekk suñu ginnaaw war ñoo waxal war ñoo kaasal kaasaloon ñu kon ñun dañuy wax li nga xam ne moo nekk ci ñun duñ dépassé kenn nag ndax mm-hmm. kenn xamee woon ci ñàkk discipline mm-hmm. nit ñu am yar lan nit ñu yaree fu ñu war a yaree lan mm-hmm. mais tey jii nii buñ la bëggee fooyee da ngay da ngay da ngay wax li nga xam ne moo nekk ci yow parce que ñun ay xale lan ni financé lu bari bari di ko def ci làmb arbitre yooyu kenn xamul ñaata leen leen di fay kenn xamul fu ñuy liggéey. mais mais si loolu mën naa ci def enquête mais ci làmb ji la ñuy liggéey mais ñun ñi nga xam ne ñun bu ñu. man lenn rek la ma arbitre defagul. mooy ma ñëw taxaw arbitre bi xool ma neexuma ko mu joxe victoire mais arbitre yàqee na sama làmb nu ne. Ah barke Seydina Muhammad wallaahi samay làmb ku ko seetaan ku ne. man musu sama ngeen benn yoon la musa laal suuf. musu maa daanu. mais arbitre yi dañuy def loo mais wóor na da lay xool. da def maanaam loolu la ma defagul. ñew ma taxaw arbitre yegg ni ni yëkkati sama loxo loolu yëkkati loxo adversaire be en tout cas euh, lamb ji xamna naa bo sax dool ma ci mais mais dinaa si ñëwaat euh, sama consultant hmm. da nga kay lu mu wax xoolal ma mbër yeeg CNG dégg naa ci mën wax yow gis nga yeen dina la xamal ben affaire mhm. yeen ngeen am ben sas bo xamante xamna bay bay bu len ci xel sax muy jeune su mbër yu ndaw yi la wax ne mhm. parce que man dama japp ni ñu mag ni seen walu dépasser na yéen est-ce que yéen pare ngeen pour delloosiwaat làmb fi mu nekkoon xam ngeen ne làmb tardé na hmm. loolu moom xam ngeen ko bu baax làmb fa mu nekkoon par rapport ak léegi. eh bu làmb tardé wul ndax ñoom dem nañ pale ah. non <laughs> déedéet maanaam non non non <laughs> rek. Hmm. ñii dañoo am sas. boo man zéro su ngor bu dinaa la laaj yow est-ce que pare nga pour delloosiwaat làmb fa mu nekkoon. waa léegi nu mu koy delloo waa làmb fan la nekkoon. dafa mën a làmb bari yow làmb léegi pour nga gis làmb bu ñu wone ci télé sax dafa jafe. Ah, télé en direct. Ah, si loolu en direct grand combat. en bokk tamit ci ci pour ñu mun a jaay stade bi parce que bu fekkee ne ñëpp bu ñu toogee seetaan ko direct est-ce que loolu dal ci. d'accord mais xam nga làmb même loo mën di jaay stade bi mën a jaay stade bi làmb ka mu jaral mooy dem daggi billet di ko seetaan yi. Hmm. làmb ka mu jaral. alors ngay déplacé wu. dem di ko seetaan gis nga kii toog këram. allo. lamb mën na koo jaral loo xam. jëlal jëlal kii salaamaaleykum man am na ko nekk. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. allo waa. monsieur Kaya Takay Kër Sëñ Tekki. allo. allo salaamaaleykum. aca dem na mën ngaa duggaat rek boo defee nga wax li nga xam ne moom nga xalaat euh, ci ci émission mbër doole. Mhm. aca fi nga nekkoon baax na. waaw comme li ma li ma doon expliqué sànq foofu foofu laay dellusiwaat. Mhm. xam nga ñoom euh, comme nu mu nu mu nu ma ko doon waxee sax. Mhm. lamb dafa toll foo xamante ne bii nii comme ni ma doon wax yéen ñu mag ñi seen wàll dafa dépassé wu. yow nga ne moom mu ne lamb instant yi tardé lamb dafa tardé. parce que dama ne woon am na ñu nekk ñu nekk seen biiri kër. ñoo xamante ne. xaaj bi xamuñu kii te pourtant Balla Gaye am na benn âge bu mu doon toll fii nii ñu bëri xamoon nañ ko parce que bu doon bëri ay. combat yu ndaw yi. ñu bëri dañuy nekk ci télé yi di ko seetaan. mais léegi ma la xam nga lu ma la ma waral lool. Mhm. mooy ñi fi nekk jamonoy Balla Gaye. Mhm. ñooñu dañu doon dundal de ndeysaan ñi fi nekk jamono ji dañuy dundee làmb dundalul làmb. ndax boo xoolee tey la jeunes yi bëre gën a bëri tey la espoir yi gën a bari tey jii nii ñoom nu doon def stade rek ñun dañ koy def stade. man damay ñëw stade damay bëri mu neex. damay fecc mu neex damay ambiance mu neex mm-hmm. barki alxuraanu kër gi ma ñëw lu ma def day neex damay indaale ñëpp man mbëru amateur laa kon kon aka neex tuus waaw man damaa dégg nag fi ma doon expliqué d'accord naa mais fi ma doon expliqué kon dafa am ñu ko rek lamb dafa am ñu ko rek mm-hmm. yéen nag yéen a war a jël seen i décision yu mag parce que bu ngeen jëlee làmb def ko muy seen. asalaamaaleykum am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. def ak fay wootee. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu di ziar. salaamaaleykum. dégg-dégg bi kii Ibrahima xool ma serveur bi Ibrahima. ba pare wàññi télé bi dafa mel ni xool bu baax a baax dégg ok yow. voilà Seck Ndanane man bu ma ñëwee si moom Seck Ndanane est-ce que yéen dañu leen fay ci làmb ci yéen a ngi ciy gis ay mbër yu dan ñuy fay leen ñuy fay ñu ngi ciy gis suñu bopp. ñu ngi ciy sant ñu ngi ciy sant yàlla. salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. allo alo allo allo alo allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. daa mel ni génn nag. yaa ngi ciy gis sa bopp foofu. waaw ñu ngi ciy sant bu baax a baax ndax tey jii nii. dañ koy sante yàlla rek. xëy na yàgg nañ ci làmb yàgguñ ci làmb mais mm. amaana am na ñoo xam ne fekk nañ leen ci làmb te luñ ci fayeeku fayeeku mm. ñi ñu ci xam xamuñu li leen ci kon loolu du suñu jàmbaar dañ koy sante yàlla rek. mais sëñ bi ndaanaan bu ñu bëggee xam lan la dund ci loo xam ne li ko gën a metti la ci làmb loo xamante ni war ma gën a metti sama làmb man mooy li ma jóge nii ndax damaa waaj pare ak samay mbokk. doon bés boo xam ni fooyewu ma ko foowloo ma ci ku ma ci nar a ma jël la tegee la nee mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. ma ñëw arbitre bi xool ko ba mu neex ko mais si arbitre bi gisul man boo amee làmb ji teg ko ñu ñi seetaan ko mm-hmm. ñi lay waaw ñi lay suivre buñ seetaanee buñ nee man daanu naa ñoo man ma gëm yàlla mais loo xam ni yow tey jii nii sit amu fa xam nga loolu dafa metti quoi parce que ñun dañ bàyyi suñu lépp geen dem di entraînement di rey suñu bopp. kon bu ñëwee suñu làmb demee noonu bu buñ ko métti luul duñ ay gor. te ay nit ñoo ñuy topp ay mbaam toppuñu ay xar topp ñu. xam nga am na loo xam ne dafa ñaaw rafetul ñun ay xale rek lan nekk ci affaire di suñu bay suñu waar. ñun liñ am ci làmb ñun ñoo jaayante reyante ñafe bañ xam ñu ci làmb. ba ñuy tëggal ay spécial. xam nga. kon loolu noonu du lu ñuy fooye wala lu ñu xam ne tey jii nii dañu suñu bës dara duñu ko yàqal ñuy jéem a négocier nii. arbitre boobu dafa maa tooñ. looloo ma gën a métti euh, sama làmb. sa ndaanaan man tamit il faut que ma laaj yow sa diggante ak euh, sa supporter yi ndax yow sa mbëri penc nga. ndax xam la moo tax ne kay mbëri penc na moom nekkul kay ñu mu toog nii. ndax jour labam man nekkuma woon kay sa supporter yi ah. mhm. maa ngi nekkoon kay ci suuf. Mhm. mais kay dama fi dama fee gis waa Dakar gis ci kay waa Balien bi. waaw kon war nga ma wax nag li sa secret ak nit tamit. waaw jaamu parce que jaamu mooy lépp man boo ma fekkee Tivaouane Pël. Hmm. da nga naan Tivaouane Pël laa dëkk. Hmm. wallaahi man naa am combat def trois un mois wala deux mois di ko fi waajee. boo ma fekkee Yoff nga ni Yoff laa dëkk nga fekk ma Ngor nga ni Ngor laa dëkk. Hmm. xam nga nga fekk ma feneen ak feneen Kër Massar nga ni foofu laa dëkk. Malika nga ni Malika laa dëkk maanaam nit ñu foofu yëpp jàmm moom fa yóbbu quoi tamit doomu aadama. lenn rek nga mën a jaañ ñi ñu mu saf leen muy jàmm mm-hmm. muy ngor muy fulla muy fayda te loolu lépp dama leen ko wan ba mu jeex mm-hmm. ba tax na lu ma ci xew xewle dama leen di gis kon man loolu bu paasee noonu sama temps bi nga xam ne am naa ko war naa ko mën a partager ak ñoom bokk ak ñoom ndeysaan ndax man jaamu laa seek ak ñëpp quoi mm-hmm. waaw rawatina waa Yoof bi ma jugee waa Tiwaan Pël nga xam ne bu ma amee ñoo am ma ñàkk ñoo ñàkk kon tamit askan wi moom jaamu rek nga mën nga leen mën a wan am jaamu boo leen ah, boo leen wanul jaamu. d'accord Ndaanaan léegi ñu gis ne Seck Ndaanaan ginnaaw bu ñu dundee jafe-jafe yooyu ci làmb Seck Ndaanaan war naa am fu mu teg bëtam Seck Ndaanaan instant bi nga teg sa bët pour amaat ci làmb. ci laa teg sama bët mais kan nga bëgg a bëre instant bi wala kan ngay laaj wala lan la xaar ci yow pour jëlaat combat. waaw maa ngi. samay entraînement. nekk ci li ma war a nekk rek. wallaahi ñu ngi jugee suñu combat chaque jour ñu ngi ñuy woo. bi kan ngay xool nii pour teg ko si bët. mais làmb rek ku ma boole damay bëri ndax man moom. maay man moom bëgg mais su waawoo kenn yow. non su waaw ma kenn ndax parce que ah. xam nga lu tax su waaw ma kenn. Hmm. su waaw yow toog na fii mun a bu yow la ko joxee combat mu jël nga ne su waawoo kenn buñ la joxee Tip doo bëri moom. non bëri maa ko. pourquoi pas. champion la de en tout nga sama doom moo ko daan quoi maa ngi koy nuyu confiance mais après confiance borom Tivaouane maa koy nuyu bu baax a baax moom jógee ci combat nga jógee ci combat ngeen jógee ci victoire moom victoire maa wax dëgg neex yàlla bu jaaxaan jeexee dëgg des rek man sama bët teg naa ko dul si ay ci des Petit Lo Petit Lo non neex yàlla ah euh, ak kan ah tontu non ko sax moom xam naa moom. ñemewu ko Tony Junior moom ñemewu ko ko dafay ah, rey ñemewu ko. Tony Junior moom non non doomu géwël la mais ñemewu ko dafa dis si moom. non ñu Tony suñu mbokk la. non non Tony moom dafa dis ci am. non yii Tony Junior mooy suñu mbokk la mooy boobu moom. ayca ana waa Tubles mën ngeen dugg ak ñeneen ak ñeneen en ah, pour ngeen participer wu seen émission yéen seen spécial mm-hmm. émission Mbër Doole. mën ngeen a def 78 668 01 36 ngeen dugg wax seen xalaat wax ki ngeen bëgg a dégganteel ah. Xadim Bamba. waaw Aliou man damay damay retourné du ñàkk damay retourné waat comme fi nga jóge woon sànq dama dégg ngeen ko mburu penc nga. Mm-hmm. Euh, mburu penc xam nga lan lay signifié. Mm-hmm. kon boo doo déggoo ma ne responsabilité yi ngeen am ci laam yow kon dama naan responsabilité yow la commencé. pour ngeen delluwaat laa ba fi mu nekkoon. Mm-hmm. que responsabilité bi yow mën na commencé ci yow. ça veut dire que ne nag fi may waxee mooy xam nga làmb fi mu ne lu ci bari dañu violence boo tax. effectivement. eh mais violence moom bi moom maa lay tontu moom sec bi moom kay mooy ma maa lay tontu. mais mais mais a a de baaxul. ma tontu la ci da leen. yéen mbër yu ndaw yi da ngeen am responsabilité pour delloowaat la fi mu nekkoon. ndeysaan mooy. ñu mag ñi seen wàllu wees na. Mm-hmm. ñooñu ku si bëriwaat ay deux combats trois combats du too leen dégg. xanaa ñu di comme li nga wax noonu ñu ñëw di leen jàppale seen te buñ dee leen jàppale tamit tant que ñu ngi gis violence bii nii. man mbër mag laa ñu mag ñi ngay wax noonu barke alxuraan bàyyiwuma leen xel xam nga bàyyiwuma leen xel. parce que ñoom defaruñ quoi dañuy yàq. non dëkk gaas ñun bu ma si bëree benn combat sax man mbër mu mag laa def sama bopp. parce que li may toog man man li may toog. mais si man mbër mu mag laa man li ñuy fayee man dama koy fayee li leen li leen topp daf mooy topp. waaw fayee ko bi man. taa lay wax rek may ma rek man xam nga lan laa bëgg instant bii nii. ñi nekk ci biir kër yi ñu dundaat làmb. mais loolu mais la culture ñi ñooñu moom moom ci promoteur lay doon. donc effectivement ci promoteur yi lay nekk. mais ñoom ñii. man man du attaqué sax ñoom ñii ñoom ñii dañoo jël décision dañoo jël décision. dama lay riposter yow. ñoom dañoo jël décision nekk ci làmb. promoteur ñu ñuy tëggal ay combat yi baax yu neex. yaa dégg mais li uuf làmb ñoo war a defar promoteur promoteur bu la bu neex ñëw ba ci làmb ji encaissé ay biir bu làmb ji yàqoo amul li ma suur combat boo làmb ji yàqoo doo ko gis mbëri ak ki toog këram moom xam ki toog këram uh-huh. moom disu bi lu mu fayee ko en xam ko. waaw mu fayee ko xam la lan envie ban la am toog télé seetaan làmb ju neex mm-hmm. imagine tey jii euh, combat euh, kan Siteu bi ak ak ak ak euh, kii. Papa sax bu njëkk ba. tey xoolal ñu amoon envie toog nekk ci làmb di ko seetaan lan moo ko yàq ay violence yoo xamante ne bii nii. Mhm. tey jii loolu laa bëgg yéen ngeen teg seen bët. dégâts exemple bi bu laay wax diggante armée mbay guy gi foofu laay waxee. waaw gis nga loolu après kay mu jeex mais loolu kay yéen bari la. voilà léegi xam nga loolu. moom yéen la loolu moom yéen la moom. waa léegi pourquoi ñun bëri lu ñu def ñu wax ci te ñun li ma lay wax tey jii yow arbitre boobu ba tey dalagoo ci kawam te li ma la wax nii. man tey nga sëbë yow mu am kay. ma rek moo la xam nga tey jii waa ñaar la. benn bay guy gi armée. man ak seen violence la sekk ndaanaan sekk ndaanaan Seck defoo loo xamante ni def nañ la ko daan te bàyyi woo ci xel parce que yéen boo da ngeen dafa ndax mbay guy gi loolu la wax mbay guy gi na xam tali la man man xaw ma mbay guy gi ma armée la bu ma problème bu ma. parce que combat passé mu nga naan tal waaw Mbaye Gouye Gui ak Armé ñoom ñaar loolu seen problème la. loolu te damay jàpp ni violence la bu war a am am na jeex na waxtaane nañ. ah jeex na jeex na daal nañ daan teg nañ la ko. Mhm. man tey jii teguñu ma benn daan mais wóor na ma ne arbitre bi ma doon teguñu ko daan. xaw te xaw ma lu xaw ma luy problème mhm. mais gis nga violence si lépp la am. Mhm. am na ci football am na ci làmb. amna ci lépp. des fois journaliste yi dañu estat sax laale. waaw ñun ñi da ngeen dul wone seen bop rek. da ngeen bi da dul wax ak ki ki kii filmé ko mais. violence non may wax rek lépp loolu yëpp day am. mais loolu bu xasse ba am. dañ koy waxtane mu jeex tay làmb gënoon na fee metti wa si wallahi ndax ay jamono da nga doon dégg millions yi ay personnes ñoo koy seen séddoo. légui am na yé di lek ci xaalis bi. kon làmb mu ngi avancer mais da am ñu wara a làmb. am ñu war a jàppale làmb muy état tey jii nii réew mi li ñu jugee nii moo gën a metti li ñuy wax nii ndax làmb violence bi si am bare bareetul. état ci ban côté la leen di jàppale. ci lépp waaw bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee foofu. état dinañ ci ñëw ñu ngi ci euh, làmb ji parce que may bu mm-hmm. tuuti moom dafa waxoon ne soxlawul ki nga xamante ni mooy tubeless. Mm-hmm. sa bët jël na loolu. boo dee sa bët jël na loolu. moom moom darul làmb. waa déggoo ma ne. ah lu tax nga du làmb léegi man point boobu dama koy téye ba si kanam. Ah. mais yow fi nga teg sa bët bu ma ñëwoon armée. armée armée bu bëree moom. bu bëri baraam mais ay tiblés nii sax xaw ma ko. da ngay bëreel sa confiance bi mu bëreel moo tax ma xam. mais xaw ma ko sekk sekk nag dëgg-dëgg armée nag xaw naa dis dis ci yow. mais yow armée lu armée du mbër. <laughs> armée dagg licence dix mille ma dagg licence dix mille. ñu war a tëj barrière yi mu ngeen boo ab fële. benn baraag quoi man ngeen mbooy yow non man sax dama ko bëgg quoi mais si man ku man man man bëru askan laa man mais mais Seck man euh, léegi dina avancé tuuti tamit ah yaakaar naa bokk na ci ñi demoon palais de palais lan damaa xam palais fu mu nekk. ah déet mooy mbëri demoon palais. xaadim koy bëri leen mbëri demoon palais. mbëri demoon ñi demoon mbëri demuñu de. non mbëri demoon ah, wax mais man dew ma pale man xaw ma pale bu dul bëri man mosuma dem pale képp kuy mbër daal wóolal la kon nag ku demul nag xaw ma lan la ñu demoon pale ñoo dem pale ñoom seen biir yow tax demoo man de woowu ñu ma xaw ma lu xew pale ah, maanaam kon mbër bu ndaw nga non du question ay mbër mu ndaw sax man mbër mu waaw léegi euh, nangu naa ne kay léegi yow ci dem bi wala àndoo ci dem bi man non lijjantiwuma sax dem bi wallaahi lijjantiwuma dem bi ñi demoon ay quelques personnes laa ci dégg ñu naan ñi dem nañ pale lii lañ def fii lii lañ. def ah, ak lu leen di def tamit. Mhm. dañuy bàyyi xel booy ne seen ginnaaw man lañ fa jëlee concerné wu ma lijjantiwu ma ko. Ah, aw ma ci soxla. barki allah ji fàllu maa ngi sant yàlla bu baax. Mm. ah dégg naa ci ay millions de. voilà kon xam naa jot na wala jot na wala côté boobu man dama cee d'accord à 100 pour cent ci ñi demoon fële waaw lu tax nga d' accord ci yow. voilà yow doo mbër nga ne yaa si d' accord. yow Bamba yow sa tur. parce que non mais ñun mooy suñu la. waaw léegi xam nga xam nga benn instant. xam nga ñi demoon bari. ñoom cëbu itam dem faral. seen président moo leen woo de. n' est pas seen président moo leen woo. taman si seen kàddu laa dégg rek. c' est normal ñoom ay responsabilité la. yaa ngi dégg ay normal man seen président soxla leen. woo leen. Hmm. te moo déggoo li euh, ama seen wax. Mhm. mais président bu fi nekk am nañ droit jàppale ko. Mhm. bu ëllëg bu wàccee. keneen ku fi nekk boo leen soxlaa ci côté boobu jàppale pourtant yow maa ngi dégg na ne pré euh, président da leen war jàppale jàppale na leen. Mhm. defal na leen ISAT. n'est-ce pas. stade kese. bi jàll na. joueurs sénégalais yi stade bi nekk fii yëpp ñoo siy football chaque jour nga dégg ñu ni président financé na leen lii may na leen lii. waaw lu tax bokk ñun benn stade lan am nga ni ngeen defal nañu stade kon ci la war a yem. stade yàq nañ ko sax. ñoom ñoo ko yàq ñoom yàq nañ stade bi ñoom yàq. yàq nañ ko déggoo ko non stade bi. stade bi dañu doon dañu sax bàyyi ka ci karo yi. chaise yi yàqu et puis muy kaas euh, combat boobu tamit. foofu tamit dinaa fi ñëw ak yow. mais stade bi lan moo tax mu am ay caméra am télé ñoom mbëri lan moo tee ñoom tamit kii arbitre bi leneen du ma du ma du ma du ma lii ci arbitre mais dinaa laal ci ñoom ñoom lan moo tay ñuy def comme footballeur yi ñuy def moo nit dañuy jub mhm. nit ñëpp ay jub mhm. mais comme ni nga wax noonu lu mel noonu moo fi dal Sa Thiès te pourtant war naa mën a dem écran bi ngi tàkk xam nga erreur boobu tamit comme ni nga xam ne man boobu du ma ci d' accord. yéen laa ci àndal ak yéen. perbilage naa mystique la de. est ce que lu mystique. Eh, lu ñu mystique mystique. gis nga ñun dañoo bokk ci làmb ñu sax baal ñu nga Sathies Sathies Reug Reug dañu buteelu de baal day nga nga Sathies Reug Reug boobu nga wax Sathies bu mu xëyee def recours lan ko jox victoire mm. mais naa recours ci biir maa gën a leer la Sathies téeméeri junni yoon barki Serigne Saliou maa ko gën a leer juróom ñaari yoon mm-hmm. mais dañuy yemale foofu nag euh, Seck Père Birasène yaa ngi seetaan mm-hmm. TV TV xam nga ñun mbëri ndaw yi waaw nan nan xam ni geen ñun si si làmb ji lan bokk quoi yow Tivaouane Peulh nga dëkk mm-hmm. te xam naa ne yaa ngi émission bu baax a baax ndax mm-hmm. ndax fii émission bi àddunaa koy suivre waaw àddunaa koy seetaan mm-hmm. sunu papa la kon fii nii liñ fiy wax lu ne pour njariñu làmb la rek nekkul danoo réew nekkul dara moo tax ñu koy wax yaa dégg nañ xoolaat bu baax li ñuy def yéen ñu uuf làmb ji yow yaay président gëstuñu nga xoolaat ñu. mbëri ndaw yi. voilà mbaam nga damay ci jur gi la bokk. en tout cas euh, moom moom fu mu daanee kese ko moom laay ñëwaat. la ma wax dëgg nii la naa ko. wallaay xamoon sax après ma man dinaa ko. éviter mais ñu ñu ñu toogoon xam ne ne carrément abri bi kay ni mu def ko di yoon pour man sax moom ñoom dañuy ñëwaat far moom mu joxe victoire mais ci problème CNG bi moom laay ñëw xam nga CNG am na. loo xam ne ñoom la neex ndax lan recours bi da fay du noonu kay bu yebul atee foofu daar daal kon xaalis bi dugg yaakaar naa kay waa CESE xaw ma fu ñuy yóbbu kay xaalis bi seet naa ci xam. moom muy mbër. fi ñuy yóbbu xaalis bi moom dagg bi ñu leen di dagg beeg dagg métti bi. ay millions nga dagg yu métti ñuy dagg. dagg yi dagg yi fu ñuy yóbbu xaalis bi ñun moo ñuy yëpp. yéen est mbër da def recours sax perte. da jël sa xaalis dugalaat ko ci. pourquoi làmb pourquoi pas làmb ji ñu def ñu am vaar boo bëree balaa ngaa génn géew bi ñu xool ñetti maanaam ñetti arbitre si ñaari xool ba ñeent nga am consultant sa kii pourquoi kooku téye téléphone am nii di xool bu sit amul ñu woo leen ñu xool sit amul ñu woo woowaat leen ngeen bëree mais dagg xaalis bi lekk ko te yow doo xam exemple bi Pokola Balde ak Pokola Balde mm-hmm. bu laal mm-hmm. doo dem ñu ñaata la wax kii douze mille waaw ba pare dagg suñu xaalis. douze mille nga dem des ko douze mille lan la def. yëpp ñeneen daal air beeg man man daal mais xaw ma lu ñu expliqué. gis kii daal am na dix neuf mille. ma la kii am douze mille. la mais ak nu mu mënti demee dagg yooyu moo dul yoon. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ndax ñun. keneen mhm. làmb dafa metti làmb ku ci nekkul mënu la wax li muy dund. wallaahi da jël sa moyen yëpp def si. dem ñaani waa def si. dem lebiwaat def si làmb góor piiroo ko man. mais yéen yooyu ngeen di pa ngeen di fay est-ce que tamit waxtaan ngeen ñi nga xam ne ñoo yor waru làmb ji mu mën leen a wàcc. recours bañ ci dalee wax a yàgg waa léegi écran bi ne ci làmb ji pourquoi pour lan la. lu mu fay wut. lu mu fay wut du pour ñu taal ko ñun ñu seetaan journée bu mag rek lay taal ko pour lan. man moom moo lay gis. journée bu mag ngay gis écran bi tàq. mais ñun si làmb lan bokk. bu mujj bi. bu ko promoteur bi mën la fay ñoom xam nañ ni muy def ba écran bi làmb ju am mu tàq. lu am ñu lijjantee ko foofu noonu bañ a yàq suñuy làmb bañ a bañ a bañ a bañ a découragé loo jeunesse bi tamit ndax nit ñi kuñ topp rek am na lu ñu topp la. premier exemple bi mooy fi nga daanalee ndax di ngeen tafaat nag Bombardier bu mujj bi tubaab bi da ko taal gars ko yow doo ko taal. pour lan loolu. mun kaa écran bi paanu loo koy bantamaaka direct kay. waaw maa ngi koy seetaan léegi loolu plein droit pour mbëri moom la ñuy kaas mm-hmm. ñun ñun ñun ñun tey lu ñu wax fii rek lu ñu mm-hmm. kaas fii nii lu ñu wax mm-hmm. pour luy avancer loo làmb la pour li nga xam ne day dundal làmb pour li nga xam ne ñun ñu ngi koy gis ci làmb mu doon loo xam ne du yoon ndax ñun dañoo dagg suñu licence ñu boole ñu si làmb bu doon dañoo ñëw ñun ñu bokkoo leen dañuy dem toog luñ ci wax bu ñu amee luñ ciy wax ñun ñeneen lañ ciy waxal mais liñ ci war a wax ñu ngi ko ciy wax kon ñi ci des mooy ñu ñuy seetaan di ñu suivre tant am ci cër ñu jox ñu cër ñu respecté ñu xam ne ñun duñ ay mbaam duñ ay golo duñ ay xar ñun ay doomu aadama ñoo ñu jur kan mooy seen làmb tuul kan mooy président làmb làmb ji président Bira Sène mooy président làmb ji mooy président seen mooy président seen ñi Bordeaux ñi mooy problème bi doon activité foofu day naqaree bi xam nga loolu day naqaree defar day naqaree lijjanti Ibrahima ma ma tuuti rek waaw xam nga loolu day naqaree lijjanti mhm. comme nga parce que président bu ñuy amee président ñii am président ñii nekk ci leneen ñii xam nga boobaa pour nga lijjanti benn benn affaire day day day difficile. Mhm. mais su fekkente ne ñoom ñëpp boole na nekk benn. Mhm. am seen benn président seen vice président. Mhm. muy ñuy dox ci yéen yi kon lu ngeen bëgg a lijjanti gis ngeen mbër yéen yéen lu ngeen bëgg a lijjanti fii ci réew mi dañu ko def su ngeen booloo nekk benn su ngeen nekkee benn réew mi lu ngeen fi bëgg a lijjanti da ngeen koy mais seen ñàkk booloo nekk benn moo waral problème yii nii yëpp. non mbër moom bu la waxee dëgg rek. suñu xaadim ñu nuyu ci diwaanu Pout ngi seetaan nee na sa ñu ngi ko baax a baax. Mm-hmm. baax daal moom tamit foofu ci Pout. Baara Sène. Euh, côté Manika. ñoo leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ñoom tamit ñu ngi lay baax xel bu baax a baax foofu. daa sax nag émission bi euh, jeex na kay. danaka mais xam naa répondre que question boobu noonu. waaw Ba laa ñu ngi lay nuyu ba Pout. Mm-hmm. waaw mooy li nga wax rek. Mm-hmm. mu ni. Euh, dama ne. Euh, ñu ne booloo nekk benn booloo bi. mbër yi mënuñoo nekk booloo nekk benn ku la wax loolu mu ngi lay nax. ak seen conférence bi nag. mënuñoo booloo. nekk benn ñoo bëgg pale. fu joueurs yi mënuñoo boolee nekk benn. dañu waxante dëgg rek gis nga fii luñ fi wax lu ne te mënul ne. dan naan mënul ne lu mën a ne dan naan laan mun na ne. ndax tey jii ba ñoom Gris Bordeaux di dem am na ay tet yoo xam ne mbër yu mag lan yëguñu ñu ngi dem yaa ngi dégg kon booloo foofu mënu faa am ndax Ama Baldé toog na ne yëgul li xew. non Ama Baldé warul wax loolu Ama warul wax man maa déglu euh, guy gi moom moo njëkk a yëg information boobu moom moom nee na moom moo ko jàllale bi mbër bu ko war a jàll te nee na dafa waaxu ba kër ñoom Ama fekk ko fa avant moom bi muy wàcc oto avant moo ko ñoo ko génn ñëw di nuyoo ak moom ci télé laa toog di waxe mu expliqué kon bu dee wóor ko xam nga yooyu bu ko yëgee demul ni moom yëguñu ci kanamam ñi ko mm-hmm. lii di làmb doon benn bopp dama ne la nekkul ci mbër yi la waaw léegi kon baa ñu xool combat bi dikk mm-hmm. dafa mel ni euh, ñëwagul dafa léegi Ibrahima nii la may ko signalé kay bi daanaka jeex na kay ba teg yi minute léegi euh, Khadim Bamba Diagne yow sa dernier mu am bëgg nga xam moom ngay lancé maa leen di nuyu yéen di nuyu sama gars yi yi ma nekkal euh, fële marché ak ñoom Diedhiou mm-hmm. ñoom Ibou Thiam Mbaye ak Baye Djili Mohamed mm-hmm. di nuyu waa marché yëpp di nuyu tamit sama gars yi sama waa dëkk. sama mm-hmm. doomu nday ñoo daal àndal ñëpp. leen di wax waa groupe exemplaire. Mm-hmm. gars yi li ñuy wax màgg tekki. Mm-hmm. di leen nuyu ñu boo waxee loolu xam naa ñoom ñëpp mënuma di jaar seen tur. mais sama lépp la ñu nekk ci man presque ñoo ko def ñoom laa àndal depuis temps booy ba nii may xëyoon. yàlla boole ñu nekk benn dëkk fële Lambaye dëkk bu naan Daaru Ndiaye. boo di nuyu tamit euh, sama gars yi nekk foofu waa Mexey. Mhm, Mexey Lambaay. macha allah ñoom tamit euh, suñuy nit lan parce que ñoo bokk benn sëriñ. tamit vraiment Mor Ndiaye Cargan. bu baax. nuyu sama mbokki station yi tamit. Mhm. graissé la waa Total et puis tamit di lancer benn message Mourou Niang suñu société yi gars yi di toog ak affaire yooyu. Total mhm. Total réew Sénégal moo ko moom nañ ko créé sa waay bi ñoom ñoo ko moom. te bépp station Total boo xam ne dañ koo yàq fi ña fay toog di ñàkk liggéey ñëpp ay Sénégalais la. Mhm. tey maa ngi romb benn station Canada bi pourtant ña fay liggéey xam naa ne depuis événement ba léegi fayoo ko yes liggéey lay tàggoo ak sa dernier mot xanaa di waat ziaraat euh, les téléspectateurs di jéggalu ci retard bi. xëy na mm. beneen yoon rek. Mm. incha allah mais ñoo ngi jéggalu bu baax a baax ndax retard bi moo tax mu demee nii. ndax mm. waroon nañ gën a yaatal. waaye nuyuwaat leen ziaraat leen na leen dimanche incha allah waaye jaajëfal mbër mi. moom invitation bi wax dëgg yàlla yombal na ko moom sekk ndaa wax dëgg. parce que ba ma ko woowee. dafa am sekk bi macha allah moom dafa neex man. waaw man dafa ma neex. wallaahi. waaw man dafa ma neex. yéen a man dama xam di ko ñaanal jàmm ñu sax dàkk di ko ñaan mu bëgg ci làmb yàlla ko suñu borom yeggati parce que xale na ci am na jot ah, wane na ko ah, kon ñaanal ko tawfeex ñaanal ko ñëpp ñaanal jàmm ci Sénégal ak li ko wër leneen dimanche incha allah ci beneen numéro champion waaw di santaat yàlla rek am nga di leen nuyu yéen di leen wax da ñàkk ay ñaan rek mais li ngeen di wax yëpp ci yéen lañ ko gis ndax dañ leen di bu baax a baax. Mm-hmm. xam nga te tamit man tey damaa ñëw sama kër. ndax fii nii moom moo fi ñëwee dama fee war a ñëw bu ma fi ñëwul dama fee war a ñëw. Mm-hmm. ndax damay xewle waa Tivaouane Peulh yëpp bàbbeeku ñëw yoof teewee ko sonn samay bés kon mm-hmm. dama leen santaat bu baax a baax di sant ko ci mel ni confiance sama xarit sama doom day di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm waa defal ko ay combat defal ko ay ndam di ko jël nag champion la de. waaw sama gaan la wallaahi day sonn ci man. moo ma yee chaque jour pour may ànd ak moom di dem diine di nuyu. di nuyu champion yi ne fii Tivaouane pël yëpp ku lim da ngay juum ñoom guy gi ñoom Ndiaga Toubaba Dior ñoom As xam nga Siteu tamit maa ngi koy sant bu baax a baax. Mm. di nuyu tamit Xaadim Gueye Bamba ma àndal nii nga xam ni sama gaañ la lu ma ne da ciy ne. Mm. sama jarbaat la mais wallaahi. waaw Bamba sama jarbaat la mais day day sonn ci man maanaam dama ko jaral lu nekk wallaahi lazim di nuyu tamit mafia bi nga xam ne ñoo nekk koñ ba yëpp apex booy yëpp ku mm. lim day jum ñoom mm. Mamadou booy yëpp maa ngi leen sant bu baax di nuyu mafia tamit bi nga xam ne ñoo nekk Malika mafia Allah bi àllu baa ñaax bi maa ngi leen di santaat bu baax a baax a baax di nuyu Yoff gi nga xam ne falaay takkee ngemb bu ma amee ñoo am bu ma ñàkkee ñoo ñàkk di nuyu Ngor Wakaam Almadi Taraawo di nuy képp kuy bëgg sekk ndaanaan mm-hmm. foo ti nekk maa ngi lay jox loxo bu baax a baax di santaat bu baax ñi nga xam ne doon ma jàppale sama combat ñoom doo sama mag Buso xam nga ñoom jaara xam nga ba France maa ngi koy sant bu baax a baax xaalis bu bari la yëkkati may ma di sant tamit Moussa borom Amérique sama xarit sama doom nday moom tamit xaalis bu bëri la yëkkati <laughs> wallaahi wallaahi moo jàppale waaw waaw xam nga ñooñ dañuy nekk di sonn si ñun ñoo xam ne wallaahi naa bu ñu amee bés mbër bu ndaw dañuy xam naa ko man dama yor ay mbër wallaahi lazim di nuyuwaat njabootu Serigne Touba gépp njabootu Cheikh na Cheikh Saad Bou xam nga waa di nuyu tamit ñi nga xam ni ñoo ngi ñuy suivre nekk ba Buyata Algérie walaata xam nga ñun dañoo bari ñoo xam ne bu ñu xewlee dañuy teew suñuy bés di ñu ñaanal. wallaahi <laughs> waaw di nuyu tamit si sa dexa ndax moom kenn moom ci man wallaahi lazim sama nit la borom baax la yàgg ñu xamante mais boo xoolee nit ku bëri jàmm la. loolu di ko balak di ko def yëpp mais Aliou yow tamit di la <laughs> bëggee di bëggee maam Bamba. jërëjëf ñaanal télé bi dem ba sut ay télé yi Sénégal yëpp. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndeysaan maa ngi amaat kontaan bu baax. di sama yaay Fatou koy Ndiarème. ndeysaan ndax sama mag la maa ngi tuub si moom laa waroon a njëkkee. mais wallaahi sama mag la mais kon sama yaay yaay sax laa koy wax. ndax day sonn ci man. waa Ndiarème moo jur kii mais wallaahi. damay toog sax naan kon kii yow day fàtte kii ndax man. Fatou Ngoye Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ñaanal suñu papa ngay toog. yàlla xaari ko àjjana defal ko <laughs> jërëjëf naa defal ma Xadim ma ngi maa sant bu baax tamit yow jos mu man mën naa yem foofu ndax mën a yow xam nga kay xam naa kon daanaka def am na xam ne kon jarul kay wax télé di xaar si sa yow moom yow nii laay def ndax yow yow fi nga bokk <laughs> loolu kay sama yoon mais sekk ndaanaan tamit yow ma la sant bu baax ndax it yombal na lu invitation ndax mën naa jafe mhm. te jafewul tiit kay mbër mag nga yàlla xam ne kay dama ko tooñee kay mbër bu ndaw mais ma xam naa ne kay mbër bu la mhm. ndax it kay li mbëri mag yi kay def ci làmb moom lay def ndax bu bëree mu neex bu tuusee mu neex tiit day indi mbooloo. mais Aliou bala ngaa dem laaj ko calas calas gi bu daanee lu muy def ci làmb. non moom mu man dafa ne quoi maanaam kii mbëru a ko bëgg. wallaahi ñëpp loolu moom ñëpp a ko ngi tànn kay maa ngi sant ñëpp xam naa nag. <laughs> Ibrahima.